gan gi professeur Jean-Louis Camara yore kàddu conseil supérieur des chiites du Sénégal euh, nekk itam ku xelam màcc ci wàllu science politique euh, juriste nga itam professeur Camara ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. ci invitation bi nga ma invité waaye sa matinal bi mhm. alors professeur euh, oui. te di la wax hmm. pour la ponctualité. Sénégal yëpp yo na yow wala yéen <laughs> véritablement. le pays s'en porterait jërëjëf alors ñu tàmbali waxtaan wi ak xew-xewu tay bi di Ashura yem fukki fan ci weeru muharam di euh, weer wi njëkk euh, ci euh, atu jullit ñu nemmeeku nag ni at mu jot ci bës bi dafa yem ay cong yuy am ci kaw ñu ñuy wax ay chiite surtout boor yi Moyen-Orient Afghanistan Syrie ak réew ya ñu ya dendal loolu nan nga ko mën a expliquer ñi xamul li waral loolu te di ñu déglu jamono yi. waaw soxna si maa ngi lay gërëm ci invitation bi dina la wax euh, événement yooyu nga wax ni mooy am au Moyen-Orient ñuy attaqué siit yi du ñuy féete Ashura parce que dañu koy féete feetu dañu koy naqarlu alors sunnit yi pour ñoom dañu ne li ñuy def ñun teguñu ko ci diine teguñu ko ci dara maanaam dañuy def loo xam ne nekkul ci diine que ñoom sunnit yi li ñu jàpp moo di Ashura tamxarit bi fin d'année la suba sa taseeg muy euh, début d' année ma ne waa ñoom loolu lañ jàpp moo tax ñu ni comme fin d' année la dañ ciy feete véritablement euh, wane mbëgte leen yàlla may ñu dund at moom yëpp ba mu jeex ba at muy jeex du suba sa véritablement ñu nekk ci ay ñaan ñaan yàlla mu yokk mu may leen euh, ñu dundaat beneen at ñoom noonu lañu ko jàppee. mais ñëpp ñu ne euh, euh, fukkeelu fan bi la wala euh, foofu la ñenn ñi jàpp ni la at mi di tàmbalee. non ñoom ñoom sunit yi. Hmm. ñoo wax ni fin mooy fin d'année. sunit yi ñoo ko wax. mu hmm. ngi mel na ma ni la te li ñuy wax fin d'année bés bi ñuy lekk cere ji comme muy tey bésu cere bi mooy neuvième jour ci mois de muharram ci hmm. premier mois de l'année musulman hmm. mi ngi mel na ñun le trente et un décembre da toog ba le neuf janvier nga soog kaa féete premier janvier nga xaar ba le dix janvier nga soog ka féete xam nga loolu déjà ko am xel tuuti war nga poser ay question ndax yenuwul maanaa kon du ñu wax lu tax ñuy wax nit ñi ni fin d'année la ak euh, fin d'année bii la ak bee début d'année kon dafa amul li am nag ci affaire bi lenn rek la mooy benn événement boo xam ne amul àddina yëpp nag jullit yëpp d'accord waxuma jullit mais ku jàpp sax xam nga loolu mooy événement bi am Karbala Karbala lu fa xew moo di sëtu yenent bi imaam Ousseynou alayhi salaam mais bi euh, maa awee daata génn àddina dafa fal doomam bu ñuy wax Yazid Yazid bàyyi bi dee mu nekk xalif imaam Ousseynou véritablement ni kii man munuma jébalu ci moom munuma d'accord ci nguuram ndax lan maanaam pour rafetal pour bañ kii saay-saay la rek c'est un libertin comme ni ma ko waxee woon ci tubaab bi loolu doy na mu ni mais kii munul jiite jullit yi loolu nag buur ba ni comme imaam Ousseynou d'accordul ci nguuram mais naka armée bi jëli soit ñu rey ko walla ñu indi ko loolu de affaire bi am ñu tase ca Karbala ba ñu tasee ca Karbala ci la ñu véritablement dal ci ko Seynu ak ñoom àndaloon ak njabootam rey ñëpp ba mu des jigéen ñi ak benn doomam bu rëcc moom la ñu tudd Zeynil Abidin alayhi salaam hmm. kooku rëcc ndax dafa feebaroon ñu dugal ko ci tàntu jigéen ñi parce que tàntu jigéen ñi di leen laal loolu de moo ko rëcculoo hmm. bi ñu defee loolu yemuñu ci mais dañu taxale baat bi ak yaram bi dañu ko dé dañu ko décapité ren di mu jeex takk ñu jël bopp bi teg ci xeej ca kaw xeej di def nag seen parade ni am nañu victoire jëm di yóbbu bopp Imam Ousseynou di ko yóbbul buuba loolu dafa la tap ñu jël buuba jël décision ni at mu nekk neuvième jour bi dañuy def paraat moom la ñuy def ay moom ngeen ba tudde fii taaja boon yeeg ay foyo yooyu hmm. waaw ay riwaaya nag génn kon kon taaja boon taaja boon nekkul rek yëfi Sénégal waaye lu yàgg la lu yàgg la ci ci Yazid la juddoo hmm. foofu lañu ko créer mu fa lañu ko créer mu yàgg nag parce que bul fàtte omeya di maanaam mooy ñoom gouverné nañu l'empire musulman pendant cent ans un siècle mais xam nga lu ñu dugal ci bopp nit ñi te muy majorité nag ñoom ñoo ëpp nag jullit yi mm. parce que chiites yi ñooy minorité chiites yi ñoom d'accord duñ ca loolu mm. looloo indi wax ji chiites yi dañu ni un du fin d'année du début d'année. Hmm. ay waxu caaxaan la te won naa la ko léegi. 31 décembre ñun la xaaral 9 janvier 1er janvier ñun la xaaral ba 10 janvier kooku yenuwul maanaa benn maanaa amu ko li am nag mooy chiit yi ñoom la feete dañu ni kii bésu naqar la bés la boo xam ne dañ ci wane suñu naqar ba mu mot sëkk. mais su nit yi ngay wax sunni yi ngay wax jàppee wuñ ko bésu cant ndax euh, la yàlla mu cëloon euh, yonent yàlla euh, Moussa ci Firawuna ak bani Israël. xam nga euh, madame. waaw waxuñu euh, fa yàlla euh, rëcc la woon. yonent yàlla Moussa ak bani Israël yàlla Moussa mm. alayhi salaam ci Firawna du boobu rek. Mm. wax nañu ko ci maam Ibrahima ba ba ñu ko dugalee ca safara sa yàlla setal safara si nee nañu mm. bés boobu la. affaire noo ca déluge ba nee nañu bés boobu la yeneent bu ñu wax ñu ni bés boobu la ko yàlla solo ci lii ak lee. te loolu jàpp ngeen ne taxawul. ah. loolu da ngeen jàpp ne taxawul wérul. mais soxna si waaye amul lu wér parce que du fekkoon loolu la ñuy feete. Hmm. affaire prophète yooyu. kon duñ ci dugal ay neuvième jour euh, tam xarit ak ay euh, feete euh, jour de l'an ak yooyu. d'accord léegi loolu loolu yëpp lan la jote ak fitna bi ñuy nemmeeku yenn saay ci yenn réew yi notamment Moyen-Orient pour dellusi ci laaj bu njëkk bi. Afghani xam nga Afghanistan. waaw am na ay cong sax am na ñaari. état islamique nga fa. Hmm. taliban yi c'est des sunnites. Hmm. Daesh sunnite la ñu. Hmm. Ansaaru Dun sunnite la ñu. alqaida yi ngay dégg yooyu yëpp sunnite lañu ñu te ñoom fees foofu. te dëkk yi ñuy attaqué chiites yi. Hmm. c'est-à-dire les chiites sont des minorités là-bas muy Afghanistan di Pakistan di yeneen réew yi foofu les les les chiites sont moo tax dañu leen di fekk seen jàkk ñu bombardé ak ak dynamité. fii ci Sénégal yéen chiites yi nu ngeen fii dundee. ah jàmm ak salaam ànd ak ñëpp. d'ailleurs danaa la wax dara. Hmm. suñu tarixa yi dañuy wax dañu leen di boole ci sunni sunni mais doo ko xoolee ñun ak ñoom ñoo gën a jege ñun ñoom ñun la ñu gën a jege parce que ñoo bokk par exemple organisation tarixa bi ak ni chiisme organisé benn la parce que yëpp a ngi jóge nag ci imam Ali alayhi salaam. Hmm. moo ko jëkk teral c'est la première école culturelle nag de l'islam muy le chiisme voilà. loolu moo tax ñoom suñu bi mooy arab ya foofu mm. dañu ne ci ne duñu ay jullit maanaam duñu gën yoon wi parce que pour ñoom l'islam dëgg mooy le sunnisme voilà le problème mm. comme nag am na ay jombe yoo xam ni xëy na émission bi ko mm. am na ay jombe yoo xam ne xew na histoire islam bi parce que lépp xam nañu ko am na yoo xam ne ay waxu caaxaan la jombe euh, yooyu duñ ci dugg parce que kiloowul. Mhm. donc yooyu la daf ñu feeñ. d' accord léegi ñu yenn déviation yi am mhm. ak yenn trahison yi am ak yenn assassinat yi am mais soxna si. Mhm. Euh, ma posé la benn question dimbale ma. mais. Fatima waaye fi man naa naay laaj de. waaw waaw je sais. <laughs> mais nag dama lay waaw waaw léegi damay wax pour raconter. <laughs> waaw Fatima. kat mooy papaam Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñeneen bi. kenn du la wax nu mu génne àddina hmm. xam nañu ko mais kan mooy jëkkëru Fatima euh, Ali alayhi salaam di cousin ci prophète bi mu may ko doom ji dañu ko assassiné hmm. mais seen taaw Assane dañu ko posone Ousseynou rakk ji nettali naa la moo indi Karbala hmm. ça veut dire que c'est un programme bien établi nag dañu waxante dëgg pour en finir xam naa ne loolu xajul si matinal bi waaw mais la ko wax waaw waaw nga a. Euh, voilà nga mën a comprendre euh, événement yi li li xew ci diggante yi xam nga. lu ëpp juróomi simili dese moo tax ma bëgg ñu ah. baral li ñu dese ëpp juróomi simili il ne nous reste pas plus de cinq minutes donc ñu daal di wax si euh, très rapidement fitna bi tàmbaliwaat parce que loolu tam question la bu leen intéressé Palestine ak Israël ay ay ay jàppante amaat fa ginnaaw bi ñu tegee loxo benn chef jihad bu groupe jihad islamique est-ce que dañuy xaar ndax gisoon nañ li fi xewoon jamono yële si ginnaaw est-ce que mun nañu xaar lu raw peut-être loolu ndax jàppante yi déjà quelques jours rek def na ñeent fukki bakkan ak ñeent yu te leer na ni moom Palestine du ñuy toog rek croiser seen loxo di xaar ñu leen di song lan la ñu mun a séentu si si boobu pàcc si àdduna bi. moom kañ daañu sonn gis nga affaire Palestine ak Israël soxna mm, si. Mm. dama dem ba wax sama mbokk yi comme Chérif Mbaalo di organiser journée de kii pour la Palestine. Mm. dama leen ni dama sonn parce que at mu nekk ñu def manifestation bi. du at mi dellusee beneen jombe Israël def ko. bu gën a métti tant nag problème bi. Mm. waxuñu ko mooy tant que système bii nga xam ne système international bi ni muy doxe mi ngi doxe noonu. Mm. Israël lu ko neex dana def Palestine. ma ni yëf yaa nga commencé ca njëlbeen nga pour won la fax bi. Mm. ca njëlbeen nga la ñu départ. bi ñu ñëwee ba ni dañuy créer euh, état euh, en Palestine benn état pour juif yi benn état pour arab yi. foofu la. injustice jëkk feeñe dañu jël maanaam euh, cinquante et un pour cent juróom fukk ak juróom maanaam du ñu xaaje réew mi cent ñu jël juróom fukk ak juróom yi jox ko trente pour cent euh, de de de de juifs juifs yi maanaam fanweer lañu. Hmm. ñu pour ñu gaaw ñu jël ñi nga xam ni palestiniens yi arab yi soixante dix lañu maanaam soixante dix lañu juróom fukk ak ñeen ñu jox leen. quarante cinq pour cent du territoire. Hmm. Euh, maanaam Israël ñëw na si réewu Palestine ëppale leen fa. wa ëpp voilà. Mhm. noonu la demee. Mhm. foofu la te conseil de sécurité moo def euh, euh, moo def partage ba ba ñu ñëwee guerre bu ñu mës song arab yi mu mosuñu d'accord ci état Israël au départ. Mhm. moo tax keroog ba ñu créé état Israël ba ñu ko proclamé ba Ben ba mu proclamé indépendance état Israël création bi ci suba sa le quinze ci la ko arab yi attaqué foofu it. CIA ak américains yi jàppale juif yi parce que seen armée amagul ñu ngi ci calculé jàppale juif yi gagné arabe léegi réewu jullit yu mel ni Arabie Saoudite lan mooy seen responsabilité ci coow loolu taw a jeex mais am nañ ci responsabilité léegi mais Palestine ban réewu arab nga gis mu jàppale ko léegi amatul hmm. ñoom ñëpp yàllax nañu ko ndax lan parce que Iran mooy seen problème ñoom dégg nga fii ñu ni la euh, Israël Maroc Émirats arabes unis signé nañu li ñuy wax les accords d'Abraham kooku dafa looloo tax tax euh, Donald Trump reconnaître la souveraineté du Maroc euh, fale euh, au Sahara occ au Sahara occidental waaw mais daf ko reconnaître loo parce que Maroc dafa teg ci table yi nañu reconnaître ni moom moom sa fale Sahara occidental Trump d'accord ak moom mu signé accord ya ak Israël arab émirats arabes unis signé mais am na ay accords secrets yoo xam ne ci diggante Arabie saoudite bii laa lay wax ak Israël seen manko ak États-Unis ñoom ñett ñu àndandoo pour lan ñu ni pour contrer l'influence l'influence iranienne loolu de indi moo moo moo moo moo moo moo indi coow li tant que nag Israël États-Unis nga fee moom xam na ni conseil de sécurité bu ko con résolution bu koy condamné États-Unis day teg vétoom te du tegee veto bi saa ba dire du jàll lu ko neex lay def parce que c'est l'enfant gâté hmm. li indi loolu nag tubaab yi comme ñoom ci guerre mille neuf cent trente neuf quarante cinq bi hmm. mais Hitler ni mu doon def juif yi ak yeneen réewu France yëpp xam nañ ko di xeex juif yi maanaam ñu ni donc holocauste boobu nag loolu am ci sa hmm. ñu rey ci ay millions de juifs yëwut ci la ñu ñoom ni ah nañu wutal ñii réew réew mi fu ñu ko yóbbu ñu ni Palestine parce que ñoom ñoo choisir Palestine tax mhm. ñu créer leen réew ba pare nag ni leen seen intégré intégrité fii ñoo ko ñoo ko ñoo ko yore assuré ñoo ko garanti ñoo ko garantir uh-huh. alors lu ko neex. ñu ñu del 45 pour cent territoire yooyu. Mhm. léegi tax ñaar fukk la nangu nañ li ci des ndax colonisation ba mu ngay wéy. day mooy wone ne coow bi jeexagul. alors ñu ñu ñëw Sénégal ñu ngi ci coowal élection ba léegi professeur gannaaw législative yi euh, euh, pouvoir bi mel ni lu ñàkk majorité absolue ci assemblée nationale tey ban taxawaay le président Macky Sall ñi mu àndal war a am ci kanam opposition bi nga xam ne moom leer na la leer na ni euh, du leen may dara bu ñu yeggee assemblée. li mu war njëkk def. Mm. véritablement décision bëgg parce que fi mu ne il faut un électrochoc mooy lan il doit véritablement joxaat oxygène gouvernement am joxaat oxygène partem nan la koy joxe mooy da koy tijji wut ay nit ñu bees ñoo xam ni dëgg nañu te bëgg nañu liggéey. loolu du transhumance lay ubbi wala du ci way politique lay lay woo. dégguma la wax. ma i mbaa du transhumance bi ñu nekk di nemmeeku wala du ci way politique yi ngay wax mu mu mu ubbeeku. non man du ma waxee loolu. Hmm. par exemple un gouvernement d'ouverture. Mm. c'est mais c'est pas exclusivement à l'opposition et aux hommes politiques. Mm. y a dans la société civile des individus yoo xam ne des hommes et des femmes yoo xam ni ku ne xam na seen compétence ku ne xam na seen probité ku ne xam na aussi seen engagement doo leen dénkee dara. Hmm. mais ces gens-là mais ils devraient s'inspirer. Macron bi muy ñëw au pouvoir amul parti. Hmm. mais quest dafa def appel à candidature. Hmm. mais moom ci boppam tax il a été surpris des gens yoo xam ne mosuñu dugg ci ay parti des gens yoo xam ne mosuñu jege lu ñuy wax parti parce que ni affaire yi fonctionné bu euh, euh, ànduñu ca mais bi mu wootee dañu ko fekk si et ce sont ces gens là yoo xam ni kenn mosu leen fool ci ay député ki ministre ñoom la àndal liggéey. te tey jii ñoo nekk ñoo ñoo ñoo ñoo àndataal. moom kon gouvernement bii di ñëw warul nekk gouvernement politique rek. non non gouvernement mais la politique mais même un gouvernement euh, de technocrates mais écoutez euh, mais tout est politique dans la vie madame. Mm. bu ñuy wax politique kay mooy way politique yi mu nekkal ak yooyu. mais est-ce que moom loolu politiquement aussi dina ko arrangé bu bu fekkee ne par exemple mi ngi xalaat deux mille vingt quatre. way yi mu nekkal it. Hmm. non gis nga fi mu toll. Hmm. ils doivent véritablement leur tenir un langage de vérité. wax leen lan te am am na fayda te xam naa ko. wax leen lan man maa koy wax dina am fayda. lu mu leen di lu mu leen war a wax ci sa xalaat koo xam ni. Mm. koo xam ni véritablement sa compétence est douteuse. Euh, compétence je pense je dis technique douteuse. Mm, mm. compétence politique douteuse. mais lu ma laa doyee. non lu ma laa doyee. dafa war a changer daal. donc non il doit il doit changer xam nga élection locale yi avertissement la woon. Mm. mais boobu la waroon comprendre. mais élekoon ba ma déggee ñu nekk fi élekoon ñu jéem a euh, réfléchir def une étude rationnelle fi ñu ñàkk lu tax ñu ñàkk ko fee nga xam ni mënuñu ko gañe hmm. fii mën nañu ko gañe mais lu tax score bi serré et tout ça dafa waroon xool ba nga xam ne de telle sorte que pour jéem a fexe nu muy redresser la barre am na ay territoire yoo xam ne c'est des territoires il doit les considérer comme perdus hmm. mais tout Touba mënu ko gañe xam na ko mais dis donc waxuma nag bu mu fa def dara. Mhm. parce que c' est le président de la république. dafa war gouverner. Mhm. et un arbitrage nag juste et mhm. mais dama ni xam na ni foofu la preuve ko jóge woon fale ñëw ñu ko danaa la jox Touba dafa daanu xalamu. <laughs> jërëjëf professeur waxtu waxtu bi moo ñu dab. waaw ainsi de suite. Thiès xam na ni euh, euh, mënu ko gagné mais am na yeneen kii wax pour comment il a perdu Saint-Louis. nga xam ni Saint-Louis normalement waru ko woon perdre. Hmm. mais il l'a perdu. kooku véritablement eh, tu dois tu dois réfléchir sérieusement dinañ am yeneen occasion def jàngat yu gën a yaat ak yow. ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm waxtu bi dab nañu lool euh, ñu bàyyi Anna Thiaw mu wéyal matinal bi fàttali ni rek euh, professeur Jean-Louis Camara la ñu doon dalal di porte-parole euh, conseil supérieur de chutes du Sénégal kàngam nga itam ci wàllu science politique juriste nga également jërëjëf. en